léegi euh, benn expression boo xamante ni peut-être bëgg naa ñu décortiquer ko avant ñoo dugg ci débat beeg yooyu noonu comme moom daf ñu toog pour jàngal ñu mu jàngal ñu day terme yoo xam ne donc yaa ñu dund rek da ñu jàngal par force nag ndax da nga gën a miin li ci assemblée nationale kenn miinu ko ci da nga wax léegi léegi loi organique ma dégg ci ay kàngaam ñu wax ne que tey jii le président Macky Sall bu dekkente ne amut majorité bi nga xam ne moom moo consistant dëgg dëgg dëgg dëgg mm. buñ dee voté loi organique day sonn lan moo tax. ak lan mooy loi organique. waaw parce que loi organique. Mhm. mooy constitution dafa am lu mu tëral. Mhm. xam nga constitution indi na julli. mais waxul ne tisbaar euh, alxuraan indi na julli. Mhm. mais waxul ne ñeenti rakk la ñuy julli tisbaar. ay borom xam-xam. ñoo ñëw pour compléter julli yàlla woote ci alxuraan ñoom ñoo ko complété ci pratique gu yonante bi ak ni mu àttee ba di ko def noonu. donc da ngay jàppaloo donc pratique gu yonante boobu mu doon def. loolu mooy boo doon constitutionnel mooy loi organique. mooy loi bi nga xam ne muy firi li nga xam ne moom la constitution bi tëral. constitution bi très souvent bu créé assemblée nationale dafay wax ne une loi organique mooy régler réglement intérieur bi mu waxee sur les partis dafa ne une loi organique dina déterminer naka la ñuy contrôler les naka lañ leen financer naka lañ leen joxe. Mm-hmm. bi mu créé conseil constitutionnel dafa indi loi organique ne conseil constitutionnel bindoo. président nangam nangam nangam nangam ca la ñuy defee benn article bu beesu Ismaïla Madior bi mu ne en toute matière le conseil constitutionnel prend des décisions te moom kat bind na livre bu tuddee les avis et les décisions du conseil constitutionnel mooy loi organique boobu moo indi loolu da ngay dem ci conseil au conseil départemental ah, dañ lay wax ni nii lañ fay demee ñii dañ leen di fal ñii présent moo leen di tànn donc loi organique mooy expliquer mooy tas mooy leeral ay loi yenn loi yi ci conseil con ci euh, comment constitution du Sénégal. loolu mooy loi boobu nag. Mhm. kenn mënu ko woote te amuloo trois cinquième li ñuy déterminer yenn saa yi ñu ne les suffrages exprimés. Mhm. moom la ñuy bind. am moom moo nekk ci constitution bi tey wala ñu ne trois cinquième de l' assemblée nationale. Mhm. mooy trois cinquième des cent soixante cinq. wala trois cinquième de de des de des des des votes émis par l'Assemblée nationale loolu yëpp am na ci mais li ngay jàpp tey mooy constitution yi moo gën a kawe. loi organique moo ci nekk après loi yi nga xam ne loi ordinaire loi ordinaire par exemple bu ñu demee assemblée bu ñu amee sept personnes man nañ ko voter. sept personnes tey mën na voter loi simple sept personnes sax mën na tey fi ñu toll ci Sénégal encore loolu maa ngi koy wax professeur de droit yi. Mhm. personne boo ko amee ci assemblée bi war nga mën a voter constitution changé ko te loi organique il faut trois cinquième mooy ministre yi fi jaar Mimi Touré en particulier moom bi muy changé le Sénat dafa am lu ma fa tëb bàyyi ko fa mais ministre ministre Sall bi ñoom ñoo indi disposition boo xam ne bi c'est baal nañ ma ko baal ci muy waxe c'est une disposition bâtarde pour ñu changer constitution bi constitutionnel du Sénégal yëpp nañu seet loolu mooy une erreur fondamentale qui persiste. Mmh. defe naa ne assemblée bu bees bi loolu la ñu war a jëkk dindi.